comme sama gars yi bienvenue sur digital mobile tey dañu ñëw ak yéen ci beneen vidéo mooy naka lañuy def pour def logo tey tutoriel bi loolu lay doon dañu ko doon laaj moo tax tey ñu defal leen ci tutoriel benn tutoriel bu nar am importance ñu leen di fàttali tamit ngeen abonné bés cloche notification bi pour vidéo bu ñu dugal ngeen mën koo jot bu leen fàtte dem abonné ci suñu compte yëpp compte Instagram bi Facebook bi ak ak Twitter bi TikTok sax am nañ ko ak bu leen fàtte rejoindre aussi suñu groupe WhatsApp bi boo duggee ci lien bi automatiquement da ngay gis lien yëpp ñu ngi foofu ñu defar la leen ko tey vidéo bi ci loolu lañ wax ñoo ngi doog a def suñu première vidéo ci digital mobile vidéo ñu ci dugaloon dafa nekk vidéo yoo xam ne dañ koo dugaloon ci digital informatique bi pare doog dugal dugal ci digital mobile mais bii mooy nekk suñu première vidéo bi nga xam moom la ñuy def spécial pour digital mobile bu leen fàtte abonné bës close notification bi léegi ñëw ci vidéo bi war nan ngay def pour créer sa logo léegi sama gars yi première chose bi ngay def da ngay dem Play Store léegi sa résultat Play Store moo ngi nii nga ñëw ci sa barre de léegi boo ñëwee sa barre de nga bind logo maker nga ok nga xaar sa résultat ñëw voilà sama gars yi léegi première application bi deuxième troisième quatrième bi la moo nekk nii logo maker free logo design logo creator apk nga cliquer léegi boo cliquer nga installé ko voilà sama gars yi léegi suñu application nekk di téléchargé wu le temps que muy téléchargé wu ñu am tamit lu leen fàttali mooy que dañuy def dañuy def benn tutoriel boo xam ne day nekk la meilleure application de montage ça veut dire comme comme defoon nañ beneen dañoo defoon beneen vidéo mooy naka lañuy def pour télécharger ko mais tey dañuy ñëw wan leen ci montage notification vidéo bu ñu dugg automatiquement yu voilà sama gars yi suñu application léegi moo ngi daw application bu oyof na nag je pense seize la diisul mën ngeen koo télécharger ci Play Store ak Tweet Chrome ça dépend de toi yaa xool site bu la neex nga télécharger ko fa ça dépend de toi voilà sama gars yi application léegi moo ngi installé wu moo ngi installé wu ñu patiente tuuti mu installé wu voilà sama gars yi léegi application bi installé wu moo pare dañuy ñëw ñu ouvrir application bi voilà sama gars yi léegi moo ngi nii suñu accueil moo nekk nii léegi dangay xool ban façon logo nga war a def musique logo ou bien business éducation ça dépend de trois business logo ñu ñëw business logo léegi day indi ay publicité autant ñu quitter publicité bi léegi logo logo yaa nekk nii di installé wu mu ngi installé wu voilà sama gars yi léegi logo yi moo ngi nii léegi dañuy def ñu ñu cliquer ci logo bi ñu essayer non c'est je pense pro la boobu da ngay fay pour nga mën ko utiliser léegi ñu utiliser bi ñu xaar tuuti mu recherché wu. voilà sama gars yi léegi suñu logo moo nekk nii léegi logo bi dañ ci bu fekkee dañ cee bëgg a def tour nii ngay def da ngay ñëw. nga xool loo ciy bind comme ça digital informatique léegi ñu ekk di bind digital informatique digital informatique léegi bul autant ñu hmm, bi léegi ñu koy supprimer ñu def digital informatique ñu bind digital informatique pour digital informatique nga mu ñëw mu ngi nii yaa xool ban façon écriture nga ci bëgg yaa ngi noonu ça dépend de toi yaa xool modèle bu neex nga jël ko mu ngi nii fond yaa xool fii fond bu neex nga jël ko yaay xool couleur aussi bu la neex ñu jël rouge bi léegi moo ngi nii léegi rouge baa ngi nii bi aussi on peut le supprimer léegi boo ñëwee léegi boo ñëwee nga jël digital bi nga placé ko nga moo ngi nii nga placé ko nii ba y a aussi des effets am na ay effets tamit ay effets effets yu nice sax ça dépend de toi yaa nga cliquer ko nga dugal ci ay étiquette nga xool étiquette fii bu la dugal yaa bañ mooy nii yaa aussi yu nga xool fii logo aussi bu la neex nga jël ko ça dépend de plat yi bu la neexee tamit nga jëlee sa verset mooy nii birthday ay emoji mooy nii application bi nii dang la da ngay ñëw nga bind li nga bëgg a bind dugal ci ay fond def ci ay contrôle ay opacité opacité baa nekk nii nga xool loolu du opacité bi soo neexee aussi nga def ci bank group mu nekk fii nga xool bu la neex comme ça nga cliquer bi nga moo ngi nii léegi ñu def ok moo ngi nii léegi yow bu la neexee tamit nga dugal xool sa foto bu la neex nga dugal ko nga dem sa galerie nga xool photo bu la neex mën nga ko cee def maa def anniversaire aussi birthday nga xool photo bu la neex nga dugal ko ci nga xool photo bu la neex moo ngi nii on peut prendre cette photo ñu jël photo bi da ngay ñëw fii nga mesurer ko cadré ko xool foofu xool foo bëgg photo ba yam fa léegi c'est bon foofu baax hmm, don nga cliquer don nga léegi sa photo moo ngi nii yaay xool foo koy placé ça dépend de toi nga mesuré ko xool foo koy placé bu la aussi nga ajouté waat beneen photo application baa nekk noonu léegi application bi aussi su ngeen bëggee lien bi mën nañ leen ko defal ci suufu description bi yéen ñëpp ngeen dem cliquer foofu mooy gën a facile ngeen mën koo am merci sama gaay ba beneen yoon ci beneen vidéo digital informatique